problème il xam nga le conseil constitutionnel c'est c'est l'étape mais mbir mi nee naa leen depuis longtemps parrainage bi dafa am benn tare congénitale tare congénitale bi mooy depuis le départ acteurs yi waxtaane wuñ ko biñ koy voté fii en avril 2018 je crois c'était le 18 avril jour boobu on a fait un forcing à l'Assemblée nationale les gens de l'opposition de la société civile ah nit ñëpp les gens s'étaient mobilisés pour dire que ànduñu ci parce que en réalité xamuñu woon lan moo ko lal et les gens n'en ont pas discuté bu fekkee ne da nga nekk ci langue politique di ay décisions politiques mais da ko war a boole boo ko yàgg acteur yéena ko bokk ça n'appartient pas au président de la République d'autant plus que dañ koy dugal ci code électoral boo xam c'était un code consensuel loo xam ne dañ ko ñëw ci code électoral bi comme que Diouf daf ko joxoon ne waxtaane leen ko duma ci changer virgule boo ci dugalaat leneen aussi da nga ne acteurs yi waxtaan leen ko suñu paree ñu xool nu ñu koy dugalee ci biir mais yow yaa xëy rek indi sa parrainage mm-hmm. les gens veulent revendiquer nga quadriller toute la ville ne kenn du kenn kenn du revendiquer mm-hmm. lu gën a garaaw dans une démocratie jour boobu ñun on n'a même pas pu accéder c'est-à-dire mënoo sax romb Médina fépp lañ quadrillé ce jour-là on a y' beaucoup d' acteurs yoo xam ne jàppoon nañ ñoom ñoom si ñoom loo xam ne yow ñoom pour ñoom la. Mm-hmm. donc loolu moo faussé données yi dès le départ. ce qui veut dire que li ko laloon c' pas pour résoudre en tout cas li ñuy wax ay candidats fantaisistes mais c' était tout simplement pour s'assurer cest à xam boo ci demee doo doo nga jàll premier tour c' tout simplement ça. Parce que déjà, il faut, faut, faut voir, l'épisode de Karim et de Khalif Sall, ça a été résolu par, par l'arme judiciaire. léegi nag li ci des il fallait terminer ça avec simplement un parrainage boo ñëwee comme ni ñu ko waxee rek nga am mm. ay candidats yoo xam ne wóor na le yow yow di nga jàll sa premier tour et li ci gënoon a grave mooy même l' actuel premier ministre bon pas l' actuel l' ancien premier ministre qui est aujourd'hui dans dans le camp opposé moom ci boppam li mu waxoon moo amoon cinq candidats lañ ciy am te cinquante lañ mu doonam mais même bi ñu jógee ci loolu deux mille dix neuf ñu ne léegi il faut CEDEAO ne il faut que ñu améliorer ce système de parrainage parce que personne n'est contre mais nañ ko améliorer bu fekkente ne dañ ne yaa a des doublons yoo xamante ne nii c'est par rapport à la au positionnement mooy tax nit am doublon mais comment faire pour qu'il égalité de chance parce que mbir mi warul nekk ni maa mujjee maa njëkkee ki njëkkee ak ci kii ki ñoo war a yem même chance loolu mooy démocratie mais yow soo mujjee ñu ne la yow yaa gën a ñàkk chance ça veut dire que kon yemale woon nit ñi. léegi nag au même moment am ñoo xam nga rocc leen yóbbu leen ci parrainage des îles mu war na ñooñu sécurité nañ leen maintenant le reste nga bàyyi leen ci ci dans dans cette forêt là nébuleuse. où de droit dans tout ça parce que li may wax jour état de droit mooy da ngay yemale citoyen yi mais yemale leen. léegi nag loolu moo indi lii lii Ndeye Fatou dañ ñaxtu naan chaque fois loterie loterie mais warul dëgg comment peut-on aller à une élection présidentielle aussi crédible tu soumets en tout cas euh, les candidats à une sorte de loterie ñoo xam ni war na ne mën na mën na rey ñenn ñi et en plus de ça li ma doon wax ñàkk a waxtaane bi su fekkente ne dañ ne ci ab logiciel lañ koy def mais acteurs yi war nañ ci am une idée claire may mun laa di tout à l'heure mais il faut que au moins nit ñi bala ñuy dem ñu wax leen c'est-à-dire toute une pour ñu xam ne il y a des gages de transparence mais amul benn transparence nit ñi daal ils sont dans une sorte de cheminée comme ça dañuy tëñëx tëñëxi dem joxe sa clé doo xam c'est-à-dire y rien amul dara lu trans cest à transparence dans tout ça li jógee daaf DG c'est-à-dire dara lu transparent amu ci c'est-à-dire que aujourd'hui monsieur lii il faut nga xam leen que y une volonté manifeste c'est-à-dire de ne pas faire une élection transparente par rapport à tout ça ministre bu taxawee le ministre de l'intérieur dem assemblée ne je donne des gages de transparence waaw mais nan yow na nga bëgg a defee transparence regarde même au niveau de des des des des inscriptions qu'est-ce a fait inscription boo xam ne ça devait s'étaler sur six mois. six mois yóbboo ko trois mois nga kale ko ci un mois. mois. et puis sans les acteurs encore. et li gën a grave mooy des gens yoo xam ne dañu bëgg a taxaw ne dañu bëgg a ñuy fanaan à Kaolack des trois heures du matin ñëw ci commission pour des citoyens ni ne dañuy rang ba fin de journée duñu bindu c'est-à-dire on a tout fait pour que les les citoyens duñu bindu même ñi nga xam ne dañ doon wut ay certificat de résidence da ngay dem sax fa nga koy wutee ñu ne ki koy war a joxe sax new fi finalement une fois deux fois boo demee tu te nga ne bon man mënatumaa dem bon nga bàyyi donc foofu la ñu njëkk a biaisé processus électoral bi mais lii c'est l'étape finale tout simplement mais dafa am yu bëri yoo xam daf ko jiitu te loolu moo waroon parce que bu fekkee ne da nga nekk ci langue politique gi en tant que président de la République c'est-à-dire yooyu yëpp garantie yooyu da nga ko war a joxe mais le président Abdou Diouf au sorti des élections de 96 quand l'IGE lui a dit il faut améliorer le système électoral mais ci la indi ONEL ci e. e, la indi DGE ONEL DGE foofu lañ jógee te même DG sax bi koy ne gars yi dañu waxoon ne DG bi c' était pour être une doublure de Lionel et le général Niang s' est beaucoup battu à l' li mu leen waxoon ne leen yéen waa daaf fet de sorte que fichier bi automatiquement dama koy am toujours fii au niveau au niveau de Lionel gars yi wax mu kaas ko ba tëdd ci naaj bi daaf virgule sax bu fa amee day feeñ ci machine am mais cangé j'ai entendu la Sénat dire ouais. que fichier bi c'est-à-dire fichier bi ñu yore baaxul. c'est un scandale. mais man dama ne non on est dans quel pays. n'est pas à jour cest <laughs> alors que normalement nee naa la dañ koo def connexion automatique te loolu c'était en 98 tey la xarala yi gën a gën a gën a gën a gën baax. mais absolument rien te loolu nag moo feeñ ci système de parrainage bi moo tax les candidats qu'on élimine là même on peut les éliminer facilement moi j'ai entendu Charles Émile Ciss bi muy wax. li mu wax c'est un scandale encore ni muy c'est-à-dire claim bi niñ liñ ci def yëpp wax ko ba mu leen man je un comité de l'administration def naa ci administration année yu dul jeex maa yi gérer ma doon gérer solde xam naa bu baax tout ce qui sa passe donc kooku moom xam na li ñu ko def d'autres candidats en ont été victimes et malheureusement Bougane fait partie de ce lot-là parce que c'est là où ça fait mal quand tu vois des gens yoo xam ne dañoo am un projet politique war ko présenter à des citoyens sénégalais yoo xam ne ñoom dañu gëm seen projet yow nga taxaw lànk ne loolu du fi am c'est ça la démocratie Bougane en a été victime Abdourahmane Diouf en a été victime man nga wax taxaw ne ñooñu amuñu projet politique bu ñu war bu fi bu ñu war a mën a présenter sénégalais soyons sérieux mënoo dem élection ba pare bëgg ne ñii laa bëgg ñoo ci dem ñii duñ ci dem non non que dans une élection le président de la république ça il de tout le monde da ngay tëddee njaaxaanaay et tu assures les citoyens que ni yéen ñëpp ñuy dem vous êtes à égalité de chance mais su fekkee ne danga nga bëgg jël ay nit privilégié leen par rapport à d'autres mais loolu ça risque de poser problème et le contentieux électoral là suñ ci deful ndànk mën na am parce que actuellement benn gage de transparence amul ci li nga xam mooy xew conseil constitutionnel man mënoon naa d'accord ñu ne comme que clé yi dañuy rek la ñuy dugal parce que fiche yu bari yooyu yëpp ñuy yóbbu finalement ça ne sert ñu ne candidats yi yéen jour ji bu ngeen ñëw indi leen seen i bagage boo ko fekkee bu fanaan soo ngeen ñëw indi leen parce que da ngay ñëw rek ñu dugal vérifier nañ ko indi ñu def la vérification immédiate mais pourquoi les clés dorment pendant une semaine au niveau du conseil constitutionnel sans aucune c'est-à-dire yow amuloo lenn loo xam ne wóor na la ne sa clé bi kenn laalu ko wóorul et tous ces gens là qui sont passés là-bas li ñuy parce que même les gens de Pastef ñoom ils que ñun suñu clé dañ koo falsifié et dégguma benn démenti bu jógee de l'informatique de l'informaticien de du conseil constitutionnel. et d'autres aussi l'ont dit. donc ça veut dire que gis nga li xew fii nañ moytu ma xew ci élection yi parce que xamul gën a bon mooy confiscation de la volonté populaire baaxul parce que électeur yi nañ tool fa xam ni cest dire boo bëggee confisquer seen vote da ngay créer problème donc faisons de sorte que élection yi ñu jëm qu'on donne des gages de transparence et qu'on aille vers des élections paisibles et vraiment le Sénégal en sortira vraiment grandi. Bamba c'est vrai que bari na